surtout sama doom bi ndax événement mosaan jot ñun dañuy xat dañuy woo doom ñi pour mu ñëw jàppale ñu mais nii nii xolli fees na xolli fees na mënuñu contrôler. yëgoo woon feebar dara ci. non yëgu ma woon dara dama egg si place te ne ma ay ragal li laa si am te li ñëpp am. moom la yëpp mu doon doon da doon bokk li ñuy def. waaw dafa boole pause beeg musóor beeg yëpp mu nekk nit nit boo xam ni kenn mënul wax si moom la nga xam ne carrément mooy loolu mu nekk taalibe Serigne Fallou fu mu nekk nii du ne. Euh, Sénégal ñàkk na mais Pikine ñàkk na Pikine ñàkk na dégg nga Pikine daal ñàkk na ñàkk nañ ko nga xam ne tey jii xoli fees na daal. delloo ziar wër wër. est-ce que tamit euh, mën nga ñëwal xamante ni moom moo xew. donc ay dafay mën daal la ñu war a jékki-jékki nii dafa moo jëkkër jëkkëram ci biir néeg bi man maa ko yóbbu def émission. ci Saint-Valentin. ci Saint-Valentin waaw 7TV man maa ko jëlee fii nii fii laa gaar sama do yóbbu ko. loolu tax na tey dem def ñu émission sax tey ndax moom ko parce que man affaire daf ma traumatisé ba ko nii quoi parce que man ko hmm? jigéen ki femme ci boppam femme bi day jaay fii ay musóor marché marché bi marché cinq quoi. day liggéey quoi ay musóor lay defar ko moom. musóor lay defar quoi. ñoom euh, couple bi ñoom ñaar am nañ doom wala non bañ see yàggul même pas trois mois si la ma femme même pas mois. nii lañ ci toll daal nii lañ ci toll nii nii lañ ci toll. kenn xamul ba tey kenn xamul lan la kenn xamul gaz carbonique la kenn xamul peut nag bu ñu defee ñoom seen kii yi dañ xam la waaw mais xëy nañ de seen kii mais peut-être daal mën na ñu xam ñu xam lan la quoi mais saa bi kenn xamagul lan la mënuñ laa wax lii la wala wala lii la parce que yow rek nga waar daal ba tey kenn xamul ñu naan gaz carbonique la kenn xamul man daal ba tey je daal ci xëy na peut-être dañoo dara ici un peu temps waar de. Ah, mais bu baax la wax dëgg yàlla métti na de. démb rek ñu ne ma foo di kaf di ree démb démb démb ci mujj démb démb ñoo toog démb ñoo toog démb ñoo toog billaahi war na yàlla yéen bi ñoo toog moo jox lee moo ko jox man ak doomam ñoo toog nii di wax te bàyyi na fi doomam quoi man doom yi laa yërëm quoi. Ah, ay doom waaw ay doom am doom yu mag. muy lu doy waar mbokk yi kenn ku ci nekk itam euh, mën nga koo jàngat ci ni nga ko yaakaare waaye ba tey comme kenn xamagul lan moo leen faat police scientifique yi ñu ngi def seen liggéey dañ leen di bàyyi ñu wéyal seenub liggéey muy lu metti lu tiis lu doy waar li ñu jàpp rek ne asphyxie moo leen faat day doon tees boo xam ne itam dañ koy soutenir ba keroog ñuy gis leneen loo xam ne moom lañ leen di dégtal ba tax suñu GAL 24 dina leen toppal lu mel ni nga xam ne moo am ci Pikine bu bees ba lépp lu ci yemba Faat moo indi leen cay leeral inna lillahi wa inna ilayhi raji'un si moom la ñuy jóge si moom la ñuy dellu alhamdulilah ala kulli haal lépp lu mënti xew rek alhamdulilah la ñuy wax waaye daal métti na lool muy tiis woo xam ne dal na ci waa Pikine ah, dal na itam si waa Sénégal parce que mhm. ñoom la seen gox la dal waaye mel ni dal na Sénégal mhm. ak Afrique ak monde entier parce que xibaar yi bu bàyyeekoo fii rek immédiatement day dal di wër àddina mhm. kon ñu jaajëfal suñu naataango yi euh, suñu gaal 24 ñoom ñi nga xam ne ñooñu euh, baaxee kon euh, élément yooyu léeg mu nekk lu métti lu doy waar que démb la woon démb ji ñuy jaajëfal Ndiassi Mbow si montage bi jaajëfal waa régie sëñ Baara ñaar ñi nga xam ñaari waaye dencante yi yàlla yàlla moom seen bakkan ci benn euh, bés benn waxtu noonu ñoom ñaar la ñu xamandoo daal ñu gaañu. ñu mhm. faatu ca yàlla. pour le meilleur et pour le pire. cey daanandoo nañ ci pour le pire. Mhm. dëgg la mbëggeel dana dem sax ba bu yàlla doon def. Mhm. liy xew-xew. mën nga ni sax nanu dem. nanu ànd ndax loolu am na ci histoire ba tey. waaye réew la réew moo xam ne ca xelu kenn dalatul. déedéet. boo nekkee ci oto muy daw sa xel dalul. boo tëddee sa biir néeg di nelaw sa xel dalul. Uh-huh. boo demee ci xew di lekk. sa hmm, xel dalul ndax euh, bokk tëdd ci benn néeg léegi nit ñi dañoo xewal sax dootuñu caabi seen ay néeg duñu caabi nee naa benn waay su may ubbi daan ne alhamdulilah yàlla bi nga ma mayee ma ubbil sama bopp sama néeg xam nga lu ma wax. non man du ma tëddee ba xippi benn bët bi <laughs> ci laay wax ne alhamdulilah. bi ma mayee ma xippi. dëgg la teg sama tànk ci suuf. parce que nelaw rakki dee la. rakki dee la barke yonent bi. tey nit ñi dañuy feebar dañuy jaxle mais ni ñuy nekkee dangay ngay gis këru luyaas ku ne teg sa cin bu ndaw di baaral wengal sa kubéer muy bax cóolal li di xeeñ waa kër gi ngay wane ne ndawal nga yor bu ma ca rombeek benn doomu poson bu ma ko ca tëmbal continuer xam naa ne du ngeen fanaan hmm. lekkin yi dëkkin yi nekkin yi sofantal goo xam ne gi police nag moom yoonam newu ci. ah li tax hmm? wax nañ fi démb euh, sëñ Mourtala. Hmm, wallaahi yan ko yàlla nit. bu ñu jëlee oto ak téléphone ak yéppi tubaab. Hmm. bu ñu ko jëlee woon xaj xaj yii. dressé leen ba bu ñu ko fóonalee fooyukaayu sëñ Mourtala. topp ci gannaawam foofu sëñ Mourtala yendu dana ko dana ko fa fekk. parce que drogue noonu lañ koy jàppee. bu fekkee ne dañuy def battu battu quartier bépp jóg. ñu rakk sa dëkk bi ci benn vingt quatre heures wala ñu woo armée mu def ko day jeex nit ñi tànk yaa ngi am politique boo xam ne bii de dissuasion lay doon mhm. maanaam bu dara xewee nga dem ci ba jeex ku nar a defeti daan ah boo defee dana lay jàpp parce que gars yi dañoo xarañ dee itam c'est la même chose nii dañ leen war a autopsie seetlu leen rey lu leen asphyxier parce que ñaar nit ñu yamul même bu doon cuuraay laaj ay ay xalaat waaw mais kenn ki xanaa bu xaq xaqee dana kenn ki dana ko dóor parce que bokkuñu instant quand yàlla moo mën mbir mu doy waar la Thiaba allahu akbar jërëjëf sëñ Bara Mass waaw euh, soxna Thiaba mhm. euh, dama naan lu tiis la dama naan lu doy la mhm. dama naan la lu sëngëm loo askan wi la mhm. dama naan lu jaaxal ndey bàyyi la dama naan lu jaaxal aussi dëkkandoo la. ñoom ñëpp ba pare police ñu ngi ci enquête waaye man maa ngi ciy def enquête. yow mi waaw parce que am mm-hmm. na ñu ma fa xam ñu ngi ci euh, dox pour am lu leer. mais amoo góor jot kii. li ma ci xamagum mooy couple la boo xamante ne bi ñu marie ak léegi. trois mois la oh. ñetti weer la ñu lañu la ñu la ñu marié. Mm-hmm. ñu tëdd. ñu bëri ñu ngi évoqué nag ne. ni lan mën na nekk fuite de gaz. parce que euh, bëri na couple yoo xamante ne dañuy dañuy tëdd gaz ba am fuite. noonu lañ koy nokkee noonu la ñuy di di euh, ñàkk seen bakkan. gaz ci biir néeg bi bu fekkee gaz dafa nekk ci biir néeg bi buñ ko buñ ko buñ ko ubbee wala gaz bi euh, ñàkk tëju mën na indi loolu. wala ànd. wala ànd wala nangam mais bi ci gën a garaaw. bi ci gën a garaaw mooy gaz bi. parce que bëri na yaa ngi fàttaliku Nord Foire benn couple bi fi gaañu woon. Mhm. li leen rayoon mooy bi ñuy enquête bi demee ndeke gaz la ñu bàyyi woon foofu gaz bi am fuite bi gaz bi am fuite. ñu tëdd di ko nokki noonu lañ ko parce que nag doon ngay deewee. bu dee bu dee fuite de gaz dafa garaw mais li gën a metti euh, sëriñ Baara mooy circonstances yi hmm. couple boo xamante ne ñetti weer lañu ñu am boo gisee ci image yi ndey yaa ngi fippu mbokk yaa ngi fippu ñii di tëb di daalu mu wan ne la rek Baara euh, jamono ji kenn xamul lan mooy faat nit Baara nga koy wax sànq nit dana la euh, dana dana jël dara dugal sab ñam doo ko xam nga tëdd jaaree noonu nit dana jékki-jékki doo xam couple ba la ñu wax seen biir wala naqar seen biir ah ba àndandoo faatu doo ci ay circonstances yoo dul mën a comprendre. waxtaan seen biir ba jékki-jékki. yàlla rek xam non am na ñaar ñu fi de loolu lu musoon dal mais il paraît que kenn ki jigéen ki dafa moom moo moom moo ñaanoon moo nekkoon. Mhm. di di di di bëgg a divorcer. Mhm. léegi ku góor ki moom mënul dékku loolu. xam nga xam nga teesu mu ñëw na ba préparé wax frère mu ñu jël bagage sama yëpp suñu police bi xam naa bu ñàkk du ñàkk nag góor gi fat boppam fat bee wala mu mais suñu police bi ak suñu gendarmerie bi ñu xereñ nañu dama koy rappelé ñu xereñ nañu laa la wax parce que bu fekkoon am na teesu boo xamante ne teesu assassinat la wala teesu nangam la automatiquement bu ñu ñëwee dangay gis loo xamante ne da xam ne lii kat njombe la bu am parce que gis nga fi couple boo xamante ne jote ñu jëkkër ji ray jabar ji ray boppam. mais 3 mois kaani ñëwagul nag kaani mais ñii boo déggee tey par exemple témoignage yi nekk seen alentour. xam ne ñu ngi woon seen jàmb. un jeune couple qui vient de sa marier jékki-jékki jafe-jafe euh, am fi caba dafa nekk mbir man bi may seetaan élément bi sa yaram daw na. bi ma la xoolee mais sama yaram daw na loolu. caba parce que dafa metti dafa metti te daf ñuy loo xel rek leen oustaz. Mhm. mooy que ne. Euh, kenn xamul kañ la ak fan la ak naka la wallaahi moo tax boo ca tolloo ak kuñ lay booleel ak kuñ lay booleel allahu boo ca tolloo na nga fexe ba jubboog suñu borom mm. na nga fexe bay def lu baax na ngay fexe bay wax lu baax parce que caba mm. kenn xamul kañ la mais wa taala moo dogal seen bës moo dogal seen bës. moo dogal seen bës parce que kenn ki mënoon na njëkk faatu. kenn ki mhm. sauvé mhm. li tax ñu ñëwandoo nii. ñëwandoo nii yàlla rek moo ko mën. oustaz li may daanelee rek mooy fu ñu ko mën ak lu ñu mënta wax. métti na métti ba àgg foo xamante ne tey jii sénégalais yëpp tey jii lii la ñuy waxtaanee tabarkaal te bu yàggu dara jërëjëf Mass bu yàggu dara suñu naataangoo yi di faree si 7TV invité woon nañu ko sax yi pare si bés bu Saint-Valentin ah. kon ñu nuyuwaale euh, Rama docteur euh, sa Maria euh, Oustaz Seet yëfi tiis na de alhamdulilah rabbil alamin ci di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek comme ni ko ñëpp waxee uh-huh. wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa an kasir wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut wa ma tadri nafsun ma sa taqsibu gada di delloo ci xel yi ak xol yëpp ci sunu borom subhanahu wa moom mi nga xam ne yafalu ma yashaau mooy def lu ko neex laa yusalu amma yafalu wa hum yusaluun yàlla mooy def te kenn du ko laaj lu tax nga def mm-hmm. moo tax dof bi bi ñu tëralee ki nga xam ne dafa faatu ñu naan mbaat dañ ko posone mbaat dañ koo xoj ku ne di wax sa hypothèse dof bi dafa ñëw ne may la ñu jàmm li ma wér te wóor mooy loxo yàlla génnu ci kon ku warta dee du dee sama bi ñooy wute mas mhm. euh, si mu waxee man foofu lay intervenir mm. mooy amul benn bakkan bu xam kañ lay faatu mm. Mm. xamoo fan la xamoo naka la kon saa su ne ni dafa war a waajal boppam ci waajal sa bopp moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne sallu salaatan mutawaddia mu ne saa yooyu julli nee na julli julli kuy tàggatoo mu ne teewlul sa julli tàllal sa loxo sa borom subhaanahu wa taala nga ñaan ko mu may la mujj ku rafet ndax doomu aadama boo gis dina am julli goo xam ne moom lay mujjee julli nee na nag bu fekkee bëgg nga waajal sa bopp ngir dee bu ñëwee fekk la nga set wecc doo taq bàkkaar nee na del julli julli tàggatoo. Mhm. boo gisee nit ñi ni ñuy jullee. Mhm. këpp këppal gi. ñenn ñi ne naa julli pare ci. Mhm. xaaral ma dajale ko ba mu nekk en gros. tisbaar tàkkusaan timis dem ba gee sonn tayal gëmmintu rukkooy dootul mët su jódi dootul mët. boo toogee di taaya sax yaa ngi obbali. te ku fi président woowoon. ne heure bii. na fekk fi loo jàppoon di nga say mbokk sax ñoo lay jàppale ngir lan pour nga bañ a tardé. rencontre boobu nga xam ne moom nga war a am ak le président de la république mhm. rawatina ak yàlla sunu borom subhanahu wa taala ñu delloo nit ñi sago parce que euh, souvent yu mel nii bu amee euh, mun nañu jëm ci ñenn ñi xam ne dañuy tas mbokk ñuy tas mbokk mooy dem di def ay seet nan xaaral ñu dem amaana mu seetal ñu jox ñu ay tegtal ñu xam kan la wala loolu mhm. déedéet am na ñoo xam ne ils sont habilités à faire une enquête ñu def seen enquête ah. ñi ñuy dëkkal ñu laaj leen piste yi fu ñu jaar. Mhm. ak fan la ñu lekk ak fan la ñu lekkul. Mhm. ak mus nañu am contentieux ak nit. Mhm. ba mu mën leen posone est-ce que am am na antécédent ak dëkkandoo yi. loolu mën na si nekk. si. allahu akbar yooyu yëpp dafay am. dara si. mun nam mhm. intoxication alimentaire aussi. Ah, ñu dem ci benn restaurant. Mhm. jënd fa loo xam ne dafa am ñam woo xam ne dafa nëpp. mu nekk poison. bu doon ñoom mhm. ñaar rek ñoo ànd dem ca nag kenn yëgu ko. traçage seen téléphone mun nañ tracé fu ñu jaaroon yëpp. bu ñu commandé ak yooyu. ñu jaaroon même pas fi ñuy fi ñu fi ñu li ñu jaar bu dee lu ñu woowoon cak-cak. wala ñu demoon ci barab ba. bu ñu jëlee seen téléphone nañ xam fan la ñu jaaroon. fii la ñu jaar fii la ñu jaar fii la ñu jaar. bu dee ci restaurant la dinañ fa ñëw def seen ay analyse

parce que bu dee gaz boo xam ne substance la mortelle. Mhm. comme ay genre ammoniac ay sulfurique mais bu dee gaz yi déjà mun nga ko mun nga ko sentir bu la santé boo ko sentiree pneumologue yi mun nañ la wax ne da ngay commencer di étouffer boo amee asthme da gaz yi en ci biir néeg da lay fekk ci ah, ne dee da yor ay néeg mais li gën a garaaw mooy da lay fekk ci nelaw. xam nga li lay fekk ci nelaw. kii nelaw yaa ngi koy wax saba caba sànq muy lu leer baara euh, nelaw mooy deegu ndaw. mooy rakki de mooy rakki dee mais ki mu fekk ki mu fekk tey ji muy nelaw mais kooku kooku sëñ baara nekku fi kooku mënta mënta réagir amul benn réaction bu mën def kon ki ki mu fekk muy nelaw tey ji kooku boo koy noyyi di ko nokki caba fa ngay jaaree. mais ah, lu doy waar. ci lu doy waar caba. ak ah, tamit sëñ Oustaz Sène sëñ Baara Oustaz Sène nee na waaw Oustaz Sène nee na nit ki mën na ba kii nit ki sax ba man mënuma yaakaar nit war naa mën a een nit ki à ce point ba nga war ko mën a def leen loo xam ne tax moom mu faatu ak jëkkëram wala nga ñee leen iñaane leen à ce point mën nga ko def sax rien pour jublu ci bu ca kanamee nga dem cambriolé leen sàcc leen far la nga leen def rey leen am na itam lu xew loo xam ne jigéen ñi war nañ cee def ndànk mooy mooy caba ñu dana amoon digijee digijee am goowe am goowe <laughs> am gongo. gongo ñiy takk fas meer yi nga mun na ko nii rek romb mun na ko. Mm. mu gël gëli. Mm-hmm. nga tëddaale ko sa biir néeg lal sa premier drap. Mm. suy ci gongo. indi sa deuxième drap lal ci kawam. Mm. loo gën a ñàkk gongo bi yaa ci premier <laughs> drap bi. <laughs> Eh, ci dee la ñuy waxtaan nag yéen xam ne bu leen jërëjëf baara. dégg nga dama rek. léegi nag nga dem. topp yii di jógee Chine ak Dubaï. waaw jox ma kayitu kër gi. à péage bi. Adja Sarr. maanaam Adja Sarr waaw façon. cuuraay sarxatan euh, bés bi. xoolal façon cuuraay bu ne. bu dikkee yow yaa koy inauguré. yooyu appellation la rek bi nga waa mais léegi nag euh, mën nga dal ci loo xam ne li yow jonge rek nga ci jublu mu mu posone la parce que dafa am loo xam ne dañ koy defar pour un appartement am boo xam ne koy def pour kër gi yëpp pour villa bi yow nga jël ko concentré ko ci benn néeg yow ak benn waay aussi. man na leen a faagaagal aussi mais et mën na bañ a saxaar xam nga des fois tam nga gis ku jël xal teg ko mm-hmm. directement si nga gis ku jël cuuraay bi teg ko directement si xal bi da koy lakk rek du neex na mu war a neex xet gi rek xet nga teg day xeeñ rek vraiment aussi nag baara dëgg wax ah nga nag yéen vraiment non jigéen ñi suur ngeen ñu ba ba ñu ñëpp ba eh, eh, eh, am nañ asma fu mu nii non góor yëpp xool ko xool ko bu rey na borom ku nekk la rey kër goo dugg laajte borom kër gu ñoo la faatu na eh, ay waay waaw ñu bëri nag ci waraay leen rek daf leen nànk ci góor ñi vraiment da ñëw suur a suur a suur a suur ba ah <laughs> daf leen xam nga aussi eh, joŋee da ngay gis tey ji eh, ni ñuy jaayee dama sonn wàllu regard <laughs> <laughs> oui man ni ñuy euh, cuuraay ni ñu koy jaayee léegi. façon cuuraay bu ne da nga ko dégg. bul yàqal borom cuuraay yaa ngi dégg. seen waxtoo jot rek. waaw mais jonge quand même euh, oustaz jonge quand même du ci cuuraay quand même. du saxaar si da xam naa peut saxaar si du ñëpp ñooy koy mën dékku ah. mais saxaar itam nekkul da ngay duggandoo si biir da nga koy bàyyi peut être ba mu ba mu deñ wala nga bañ sax def muy saxaar. Mm-hmm. nee naa la bu def bu def ànd cuuraay directement si xar bi dañuy teg ànd bi léegi nag. tegal aluminium mais danger la yéen a bëgg a cuuraan yéen ñenn ah. ñi ba da ngeen bëgg lu neex nag ah, waaye daal nañ jàppale du loolu xëñ na leneen la rek yàlla yàlla daal moo seen diggante ñoo bëggante xam naa yow gannaaw yaa ngi ci enquête bi topp xam-xamu ko baara ay cuuraay ak jagjaleeg yooyu moom tàggatoo baara jërëjëf boo suba ak jàmm incha nee nga yaa ngi ci non maa ci enquête bi maa bi wàccal ci terrain Maas maa ngi ci bi dellu wàcc ci enquête bi am dëkk bi xaare leen àjjana firdawsi te yàlla bañ ñu fitnaal seen gannaaw seen gannaaw yàlla na sedd yàlla si ginnaaw yàlla na sedd loolu daal lañ ciy wax rek te wax waa ay këram nañu muñ mhm. seen i mbokk nañu muñ yonente suul na juróom benni doom ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam mhm. kon suul benn rek mel ni àdduna dafay tukki fekk du mhm. loolu yàlla may la chance pour nga dabuwaat gaa yàlla may na la chance pour nga tuub yow sa jëmmi bopp ndax mënoon na dekk doon yow mii di jooy tey yow yaay dem yàlla yàlla tënk ñu si njub. macha allah li may tàggatoo rek xam nga nekk na situation bu metti nekk na lu doy waar aussi ah waaye lépp loo gis. la def ba waxoon loxo yàlla jugu ci. kon nañu delloo lépp ci suñu borom. azza wa ndax moo am lépp. te kenn xamul kañ la. kon kuy def na ngay def lu baax. kuy wax na ngay wax lu baax. kuy jéem na ngay jéem lu baax mais caba damay euh, profiter de occasion rek di souhaiter sama soxna Ngoma Gueye ah, euh, happy birthday to you euh, anniversaire am samedi la comme samedi duñu fekk ci plateau Euh, dama koy souhaiter happy birthday to you di ko ñaanal yàlla defal ko gudd fan defal ko wér defal ko jàmb ndax vraiment ku ma muñal la ku ma taxaw la mm. euh, soxna la xarit la yaay la lépp lépp lépp la ci man waaw ah, vraiment dama koy ñaanal rek yàlla defal ko fanu gudd ak wér may ñu njaboot may ko vraiment Sénégal gi yëpp daal vraiment jërëjëf kon Ngoma Gueye happy birthday to yàlla bàyyi la ak suñu càmmiñ bi di Mass yàlla jubóoy leen dàqale lépp luy seytaane également elle fête son anniversaire aujourd'hui happy birthday to muy Raki Diagne madame Samb chérie Birane foofee Italie doomu mère yàlla bi ñuy jooy noppeegu ñu yàlla géey euh, c'est